yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sadaxa ren mu ngeen am jamono dana ñëw alal ji dafay bëri ba ko génnee sadax doo gis kenn ku ko nangu koo dem rek mu ne man man boole naa loolu am na ci jamono Omar ibn Abdul Aziz mi nga xam ne dafa maan woon ba nga xam ne adduna nga bëbbal yëpp ci jamonoom da nga génnee sadax doo gis kenn ku ko nangu mu ne balaa addunaa tukki na ngeen saraxe balaa addunaa tukki da ngeen gis mooy boo xamee ne limaan bi maanaam ñu gël si na ba tëral maanaam ci suuf xaaral dafay bëri ba nga xam ne boo génnee sarax bëgg koo joxe kenn du ko jël xaaral ji ci àdduna fi mu ne ëpp na wërsëgu nit nit ñi tooñ rek ba pare ci waaye ñu di ko wax di ko def ay ba bomba ay avion yu naar yi dem ci kawam ñii di dee xiif ma jàng googu am ci firnde alal ji gis bu mu dañee rek ku nekk doyal ba nga xam ne koo jox sa wax mu ne la